gën si ñun. moo gën si ñëpp. jërëjëf Cheikh. jërëjëf. Ahmadou Bamba gën si ñun. moo gën si ñëpp. jërëjëf Cheikh. jërëjëf. Ahmadou Bamba gën si ñun. moo gën si ñëpp. jërëjëf Cheikh. jërëjëf. Ahmadou Bamba gën si ñun. moo gën si ñëpp. jërëjëf Cheikh. jërëjëf. Ahmadou Bamba gën si ñun. moo gën si ñëpp. jërëjëf Cheikh. jërëjëf. jëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba Alors. Oh, moo gën ñëpp jërëjëf. moo gën ci ñëpp. moo gën ci ñëpp. jëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. jërëjëf Cheikh. Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul jërëjëf Cheikh jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëf Cheikh

mais mais en fait. Ahmadou Bam. en fait Xaadimu Rasuul. en fait. jërëjëf Seex. taxaw taxaw wër place. la ñu wax vee. na bi nii la voilà nii voilà c'est bon mais mais lañu wax taxaw nañu yegg sur place. aywa continué. mën nañ toog a gàllankoor. monsieur le député.